ci ndox mi ni bëri ci gaal gi ni cëpp ci ndox mi bëgg a kàbbar Jibril dana ko sa borom ne nga tàgg rasulullah mu ne cas kaamil bi yem ci wa innaka la ala a azim sëriñ bi ne cas waaw bu njëkk daal wasixtu Ahmadu ba mu ne wasixtu nee na si Abdou Xaadir Jilaani moo bàyyi koo baax daal borom ñaari bàmmeel yi ni cëpp ci géej gi ne ko sama mbagg moom càmmooñ a ngi jàppal julli amut ne war wan ko ginnaaw dellu ne wasef seexu na dijëri nit cëpp na ko sàmba gom day joore nga jàppal julli amut ne war dellu ne waseextu rasul na ko loo wax mu ne mbiram bi am kañ mu ne jil juudi wala am ci kan ngay wéeru mu ne ma al mustafa xamoo lu tax wallaahu lii muxul sa yàlla nag na ko laajal ma jox la nga ràmm ma ràmm loolu bala ngaa kàmpa mu a jumaa yi njaareen ak jumaa yi tuuba ak ajina yi bépp mu ne ne ko defal na la defal naa la mu kàmbar julli sëlma lii problème bi mooy fan lay jaaraat ba yéegaat ci gaal gi parce que hauteur bi juróom-ñeenti mètre la mm-hmm. Mm-hmm. pour jaaraat ba yéeg ci gaal gi ndox mi vague yi ñooy formé di tegal